bàyyi Sonko mon ami bëggoon bàyyi lan moo ko teexal Sonko ñi nekk ci wetam la parce que benn mu respecté li ko wër ti andi ko foofu mooy ñi comme ak compagnon ñi politique ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci politique wala mu choisir Sonko ñaar yooyu la dese woon Khalifa dafa waroon choisir sonkoo ñàkk ñi mu àndal wala ñàkk Sonko choix jël ñi mu àndal mais choix bi mu jël gënalu ma parce que ci sa âge ak li Khalifa mel ci xol du soxor. du iñaan du dara ku xam politique la mu def erreur politique bi te ku yàgg ci politique moom xalifa école politique lañ génnee kenn gën leen xam Sénégal Khalifa def erreur bi ba tàqali ko Sonko bu ko Sonko doon wax lu ko naqari sax te Sonko du technique lu ko metti daa waroon toog ne ko xoolal nañ dem rek ñaata yoon nga tàllal Khalifa micro mun la yow askan wi du ma sa tas parce que gëmoon na ko mook Sonko moo ko daan défendre tey bu demee ba ñu dugal ko ci guute ñu tàqali ko Sonko xalifa lan lay posé te après ci kanamu xale yi. exactement sax quoi. wóoratul koo mën a teg ci lu jóge ci wetam rek doo dem muy Bart muy moom parce que rôle bi Bart joué la ak xalifa fu ñu ko dugal la. mais ils sont obligés ñu def loolu parce que kooku bu fa Bart nekkul kan moo fay nekk bu fa Bart nekkul kan moo fay nekk kan moo fa tane te moom c'est catastrophique même xaar ba ñu dem ci législative nga xool <laughs> parce que am na yoo xam ne parfois dafa jar a jàngat erreur yi def politiquement jaar kook Sonko rek moom la nit ñi dul pardonner. ba pare naa la limal dara Sénégal ci soiram fàttaliku ma wala mu am wala bañ am. législatif première législative benn nguur gu bees ñu xañ ko ko. dundaguma ko. si dëkk yu mag yëpp sax. gis nañ ne que su élection présidentielle amee élection yi si topp dañuy nekk dans la continuité. oui parce que lu ko waral mooy nguur gi day ñoo andi ay projet am. waaw coow lii ne kur ñu ne bàyyi leen ñu xool ndax ñu ñu ñam leen bokk. ñam nañu système yëpp nañ ñam bu passé ñu xool. noonu la kon loolu moo lay wax ne logique bi lañ jëm. te yuuxu dana jib fu ñu ko foogewul moo tax il faut ñu regrouper quand mais am na ñoo xam du jëriñ. ñu gis ne tamit mm. euh, ki nga xamante ne moom mooy maître Moussa Diop euh, gannaaw bu mandataire am euh, jëloon li nga xamante ne moom mooy ay yenn dossier denc ko ndax daf ko doon wax ne que mu rejoindre coalition Pastef ak maître Moussa Diop nag jotoon na dugal benn plainte jëmale ko si propre mandataire am ban jàngat ngay def ci wàllu boobu. waaw li may njëkk a defloo gars yi information yi sax ñuy def ci ndànk quoi. parce que lu ñëw ñu bëgg kaa taqal Pastef day mel ni booy boobu. Pastef fa doon manœuvre ci ginnaawam pour mu delloo si Moussa Diop. <laughs> xibaar yooyu sax ñu def ndànk parce que Sonko kat tàqali ko nag kenn ne la bàyyi naa la ba faaw dane bàyyi leen ma demal sama bopp ku bëgg ànd nag ñu àndee nii. c'est clair. Mhm. kon kooku amul ku laajoon mu naan musaa Diop doo dem di nga dem ba nga dem par la force kon nañu génne Pastef ci mbiru Moussa Diop. moom magum jëmm la am na xam-xamam xam na politique. yaa ngi dégg. Mm-hmm. baka boy bi di wax loolu bu ko signalé woon ne kii kat daa bëgg ma ñëw Pastef mu débarrassé wu ca booy ba ba ñu xam ko kon booy bi xanaa du daw ay kayitam kon. kon duñ ba dem dernier virage ñu ñuy andil booy bay waxoon ñëwal Pastef mu lànk non yoonu Pastef nekku ci ñoom seen mbiru bopp la mm-hmm. kooku dem na ak la mu wax su nekkee am na. su nekkee am na parce que information rek la su amee moom moo kooku ñooy responsable buñ ci dugal Pastef buñ ci këreel Pastef dara parce que Sonko dafa taxaw ci diggu àdduna yëpp ne leen mhm. yéen laa àndaloon waaye ren bàyyi leen ma demal sama bopp waaye taxul nag ma bàyyi leen ku bëgg a ñëw nga ñëw ay dara lu mu def daay yeewu daay yeewu de ay mm. dara mm. xam na ne gàkku businessman la tàllul politique <laughs> ba gàkku gàkku xam nga ko bàkku bu ma nee politique sax tàllu ko parce que Simbalaye Sarr day démissionné xam nga gàkku ci gars yi njëkk a démissionné fii la bokk ca ca ñas xam nga dafa dafa am culture démissionné moom gàkku kon kooku business lay def politique bi sonalu ko amat nag xam na ne bu kolee gàkku mooy deuxième personne affaire gàkku mais mbiram day dox te daa yeewu. géopolitique oui te dafay yeewu. mu ne ñëw nañu sans condition. te nag ku reconnaissant la tamit nag. exactement Ahmed ku reconnaissant la. faaw ñu nangul ko ko. il a toujours accepté jusqu'à dire même. Mhm. sans. vraiment euh, vraiment ku ah, xam nga Ahmed moom sans objection aucune que bu nekkee maire ak député gën a yàlla Ousmane Sonko. Ahmed moom noonu la toll bu wee bu am am solo. bu weesee politique bi moom parfois moom fu mu toog gémmiñ du fa ñëpp. <laughs> waaw xam naa dañ ko miin ni muy nefe noonu ci plateau yi. bu hmm. ci biti lay gën a xumbee. kon xam na fi mu jëm. Mhm. da koy tracé te ku ku xeex Alioune Sall Guédiawaye ba jëlee ko fa nag. Mhm. am na lu nekk sa bopp quand même. tout à fait mhm. alors mais Oustaz ci ba ba tey ci yi euh, noo mën a comprendre Khalifa Sall ak li ko APR teg yëpp ci seen kàddu neen jàpp na ne moom niñ ko tëjee koso seeni i mbuxum la euh, dañ ko bëggoon éliminer ci ci ci langue politique gi la mu fa daj ba génn prison moom mu dem ba saisir CEDEAO tey ah. gis nañ Karim Wade tamit dem na ba foofu. am fa ndam waaye état bu Sénégal appliqué lu ñu mel ñu fa nekkoon tey waa APR ak seen coalition ñoo nekkoon au pouvoir moom mu ñëw àndaat ak ñooñu ni dafay dem CEDEAO attaqué décret bu président Bassirou Diomaye Faye. xam nga li ma wax ne yàlla na démocratie dee ma ree préciser ko fii encore bu Sénégal démocratie Sénégal yàlla na dee daa bëri contradictoire parfois day ñàkk lu jom. parfois day ñàkk la ñuy kers parfois day fen loo. ci démocratie wala ci ñi. non waaw parce que dañu koy wax ci turu démocratie bi kon damay njëkk tuumaal li leen di wax loo parce que ci tur ba la ñuy làqatu. mu dagan ci ñëpp xam nga booy àttewoo ci Coran. Ah. danañ kii Coran la def. kon gaa yenn saa yi dañuy tuumaal sax Coran bi Coran war te waruñu ko tuumaal kon la ngay àttewoo ci la ñuy xamee ndax jub na wala jubul soo demee nga song ko parce que du ma àttewoo ci Alxuraan may gis lu ñàkk fayda. ci li may àttewoo wala nit di ko gis du ma ci xuraan nii naan ah li nga def du noonu xanaa ko xelam ñëwul mais fii ci démocratie da ngay toog nit di def lu defuwul ci tour démocratie foofu laay waxee parce que li nga teg comme système te mu lay animé ba muy def loola yëf loo xam ne lu jëfu nit. loolu laa yal na dee bu dee nga noppalu dama ni noppale bu démocratie bi façon bi ñu dee woon rek ñoom ñu noppalu parce que doo def lu ne wàng nga amaat ñàkk kersa génn di souteniraat yi nga xam ne yaa ko doon loo xam ne loolu yaa koy comparé wàcc ko di ko jëlaat. contradictoire la mais tam ñu ne la non politique xama kenn mënu ko natt jigéen buy xama lan la à tout moment mën na wasin mais jigéen bu wasine tamit dafa war a wasin loo xam ne bu ko nit bu bébé boo xam ne kenn du daw quand même boo fi wasinee bébé boo xam ne ku ko seen daw kenn du assister sa sa wasin après dañ naan si ki mu wasin daaw moom bu ñu ko fekkaatee du baax kon nit ñi bu ñu layee seen tàppalee contradictoire bëgg a muur loo xam ne à la fin sa xol joxu la ko foofu la ñu wuteeg Sonko Sonko du tàppale ci politique dalay wan boppam maa ngi dégg Bougane mu ne mënul garder secret maanaam c'est-à-dire mooy kuy fen ko nëbb ci politique. boo déggee ñu naan la secret rek mooy kuy fen di ko nëbb secret d'état yéen fii la génn daan gars yi li ñuy génn nii secret la secret d'état mooy lan. na état bi nangu kër yirim boole ko compte banque am saisir ay biens noppi ñu ne ko secret d'état la. loolu taw ko ci yoon. non dana génne ne secret d'état la rek ah état loolee def di jël suñu alal. bu ñu wax secret d'état peut-être lu lu lu lié suñu sécurité. dama lay jox misaal rek de dama la ne dama lay jox misaal kër yirim moo ko moom non du ne këram la biens yi moo ko moom moo ci lu mu wax li gars yi di jël yi suñu alal ñoo ko moom non. lu tax su ñu ko jëlee ñu ne nañu noppi secrétaire rek te ku ñu laal sa bos nga yuuxu bëgg nit ñi li nga bëgg sa bopp bu ñu saisiroon IBM sàcc ko moom mooy njëkk a génn ci palais di du yuuxu uh-huh. du ko tuddee secret d'état lu tax bu ñu jëlee alalu mbooloo mi nag mu tuddee ko secret d'état loolu laa koy laaj foofu laay waxee lépp nag ci turu démocratie bu la kenn jaaxal nag parfois léeg-léeg nga bokk ak nit noonu te seen xol dëppoowul ngeen dem di xeexi bu nekkoon mas ñu gañe la bu nekkoon massa ñu gagné la. soo bokkee nit noonu xool dëppoowul. ngeen dem xeex dañu leen di gagné. défaite bu ñuy am nii moo gën a garaaw benn défaite bu ñu amoon xoolal coalition yi. défaite bi ñu am moo gën a metti défaite bu ñu mës a am. d'accord xam nga lan moo leen di yàqal li ñu regroupé wu. li man li man faluuti di wax. écrivain égyptien la nee na. tàqalikoo yoo yoo rek la jik yoo xam ngeen yoo. Hmm. du moustique ngeen koy wax. Mhm. comme dafa ma école française moustique ah <laughs> d' accord nee na tàqali ko yoo rek la jik ñu ne ko lu tax mu ne yoo su tàqali dina la matt matt fàllu ci nopp ci doq gi parce que dañu tàqali ko néeg bi day am problème mais bés li leen li li jik yoo moo bon ci nit mooy dajaloo xam nga lu lu baax ci nit du dajaloo. Hmm. yoo bu bu dajaloo rek dee parce que foofu nga koy fekk rek pompe ñoom ñoom ñu dee moo tax bu ñu tasaaroo. mais nag ñoom seen cat fii. mooy seen avantage. seen non seen dajaloo fii mooy seen musiba. mooy yoo rek yow saawu dajaloo rek ñu tàqali ko woon ñoo ëpp avantage dajaloo parce que jikko yoo lañ yor fi mu ne opposition bi. d'accord opposition bi dund yoo lañ yor léegi ñu tasaaroo woon am tuuti bu ñu dajaloo kaay fekk leen ak bomb. d'accord da nga def transition xëy na ci fi ñu bëggoon ñëw maam <laughs> muy l'inter l'intercoalition. Uh-huh. Euh, bi nga xam ne gis nañ ko ci l'opposition ñun ñëpp ñu dànk doon benn say ànd ci département yëpp les quarante sept départements du Sénégal ba ci au niveau de la de la bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Cheikh Ahmed Tidiane Youm moom mi nga xam ne mooy mandataire bu coalition Sàmm Sa Kàddu nekk euh, représentant wu Serigne Moustapha Sy euh, ci parti boobee di du PUR dajaloo opposition bi dajaloo ndax yow li ngay wax ni au contraire waru nekk lu tiital gouvernement bi parce que kat élection législative raw gàddu la. non non non non non non non tiitalu ko parce que xam nga da ngeen di bàyyi xel benn mbir. wax naa sànq ne mosuñoo dund ci Sénégal benn nguur gu bees mu ñëw ñu xañ ko assemblée nationale ci première année am réalité boobu bàyyi leen ko xel tamit quoi. Mhm. bàyyi leen ko xel ah jaru ignoré ba pare nguur gi fi nekk dafa wut nguur yi fi nekkoon. xam nguur gi tàmbali nii ci liggéey réew mi dafa gën a jox nit ñu confiance ci nguur gi jamono jii Macky Sall mu ngi dàq waa PDS di leen napp ñuy transhumé Wade c'était comme sax Diouf sax tàmbali na fi ñu ne ay ay ay sëriñ ñoo ko ne arrêté mais Sonko nekkul ci foofu ne leen bu kenn transhumé ba pare mu ngi leen nit ñi li ñu sàcc ci ñoom da ko yokk popularité bu leen fàtte réalité yooyu ah dafa gën a am confiance peuple bi. Sonko bu hmm. toogoon ba heure bi saqatul sax ni ñu commencé am doute ci moom. loo nga yaakaar. bien sûr acte yi acte yi mu posé nii. Hmm. gars yi dofuñu xam nga dañ njëkk a génn naan non da koy politiquer man leen ndokk ndokk baax pour politiquer xam nga politique bu bon mooy ngay fabriquer ay dossiers yoo xam ne danga ko fabriquer de toutes pièces mais dafay teg ay réalité ci table bi diw moo sàcc suñu alal dina ñëw fii teew am nañu ne ciix dugal ci kaso bi. ana ki doon wax nañu jàpp nangam anamu tey ki doon wax joomaay bu imagine toi joomaay taxaw ci kanamu Poutine ja do yàlla karim jamono ji waa ji taxaw ci kanamu Joe Biden wala ca dëkkam lañ ko naan ñàpp ci kaso bi yàlla karim billahi yàlla karim waa jooju rek ki doon wax bu Sonko duggee géej waaye dootu fa génn bu ne pipe rek Sonko nee na fi pipe mille fois. soo soo Sonko nee na pipe ba pipe ba yóbbu ko biir kaso mu ngi fay toog. xanaa bu ñëwee Sonko bu ko seet see mu xeex ko moom foofu. d'accord alors euh, Moustapha rapide euh, ah, ah. rapidement ñu mm, jàll euh, ci xam naa. Euh, di nga bàyyi wax Moustapha de. Euh, ponk bi waaw waaw loolu moom xam naa dinaa ko def donc ñu ñëw sur l' affaire Kader. rapidement nekk chroniqueur à la Sen TV information yi ñu mujjee jot nag. Mm. mooy moom jot nañ ko placé li nga xamante ne moom mooy garde à vue gannaaw ba mu demee woon fële nga xamante ne moom mooy.